Mamadou Ly ñu gën koo xamee ci turub du Fall moom mee nag du nervi bu sukkandiku ci collègue am yi mu doon liggéeyal waaye nag ab agent wu mairie la moom mee nag mujj naa ñàkk bakkanam ginnaaw gaañu gaañu yi mu jotoon a am ñi muy liggéeyal nag di dikkal ci anam yi mu ñàkkee bakkanam. dañ ne moom nervi la moom du nervi agent wu maire la. bi muy mujjee wax man di daw di dem daf ne ne lii du ma ko seetaan du ma bàyyi ñuy ñëw di jaar suñu kaw. di taal maire bi gàj xeer lañ ko dóor fii mu perte connaissance daanoo derrière loolu moom mooy feebaram. Doudou Fall moom même nga juddoo Medina te màggee fa mu ngi dëkkoon ci rue 15 angle 22 ñi ko jege nag di xamle ni royuwaay la woon ndax engagement woon ci biir commune bi. mairie Medina wootewul manifestation def fekku leen fekk ñu ko booru tribunal ba ba ñuy wootee manifestation fekk fi muy liggéeyee lañ ko fekk dafa xëy liggéeyi loolu jaamu xëy dem sa bërëbu liggéeykaay ay nit di ñëw ne dañuy yàq fi ngay liggéeyee nga taxaw ne loolu du ci dal ko kay kii il est mort en martyr. si biir si biir kéwam la deewee si biir xale la deewee parce que liggéeyukaayam la doon jéem a aar ba ba yàlla indi lu lu muy man daal noonu di ko ñaanal yàlla noonu noonu la noonu laa ko gisee. ñi dëkk Medina nag ñoom ñu ngi ñaawlu bu baax manifestation yu dul jeex ñu dëkkee jamono ji te nag di xam ne ni ñu ngi nag pare rek ngir aar seen commune bi te di xam ne nit dootul nekk xeexukaayu kenn wala sax ñu fay yàkkati dara. ñun nag Medina kenn du ñu humilier ku dul Sonko sax du ñu humilier waxuma ñoom seen ay patron te bu fekkoon ne ñun dañ ko waajal leen fii kenn du fi jaar billaahi kenn du fi jaar tey maa lañ koy wax ñëpp nag di ko defi tout le monde li si kanam rawul dëkk Medina ku bëgg sa jàmm bul fi duggati. jeunesse su Medina bi nag di joxoñ baaraam ñi manifestant yi ñoo rey kii di Mamadou waaye nag ñu ngi xam ne ni dinañ porter plainte